ginnaaw bu nu santee yàlla sunu boroom julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bi muy ajjuma di xëyteel maamu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent mbokk yi aju màkk gi nga xam ne moom la mustafaa mujj aj sallallahu alayhi wa sallam ñu koy wooye xajatul wadaa dafa jàkkarloo ak xeet yi def xutba boo xam ne ba ba ñuy taxañ suuf xutba ba dañ koy fàttaliku dañ koy jàngat te dafa waxoon ne na leen wóor ne dëkk bi ñu nekk muy màkk dëkk bu ñu wormaal la dëkk bu diis gànn fa yàlla la weer wi ñu nekk muy weeru aj weer wu ñu wormaal la ab jullit waxuma nag ab taalibe alali jàmbur na fa na ko fa baax derub jàmbur na ko fa baax dereti jàmbur na ko fa baax te tuur dereti jàmbur soo ko defee muy benn bakkan jenn jëmm day mel mel ni dangaa faagaagal àdduna jëpp man xatala nafsan bi gayri nafsin aw fasaadin fil ard fa ka annama qatala annaasa jamia ndaxte soo demoon ci ak njaboot ñuy benn bopp koo ca gaañ ñépp nga gaañ koo ca lor ñépp nga lor te yàlla dafa jàpp ne jaam ñi wenn xeet lañu koo ca jalgati dundam dafa mel da nga jalgati dund dundu ñëpp rawatina nag bu fekkente ne ki ñu tuur deretam rey ko jullit la ab jullit moom képp ko ko rey te tey ko yàlla moo waxal boppam ne lam koy fayee mooy safara te dafay sax dàq te yàlla mere na ko jéppi na ko rëbb na ko te dencal na ko ci mbugal loo xam ne mbugal mu rëy la wa man yaqtul muminan mutaammidan fa jazaauhu jahannamu xaalidan fiiha wa gadiba allahu alayhi wa la waaye bu ñëwee ci sallallahu alayhi wa wax na ne la zawaalu dunia ahwanu ala allahi min qatli rajulin muslim nee na àdduna ju tukki ñépp faatoo ndoo moo tane moo taneel yàlla ñu rey benn bakkan boo xam ne day wax ashhadu an laa ilaha illallah ndax àdduna bu tukkee ñépp a bokk yam ñépp ay faatu waaye tukkal nag àdduna jàmbur nee na ku ko def tukkaloon àdduna sépp moo gën a moo gën a woy fa yàlla waxaat na ne ab jullit day lu ne mën na koo jig féeg muy rey nit féeg muy rey nit laa yazaalu l muminu fi fusxatin min diinihi maanaam yusib demal xaraama ab jullit daal lu ne mën na koo jig lu mu dugg mën na caa génn ba mu des nag rey ab jullit boo xam ne deful dal waxaat na ne bàkkaar bu ne sunu borom mën na koo jéggale soo tuubee lu mu rëy rëy rëy ba mu des nag bokkaale ko ak nag rey nag ab julli te tey ko kullu danbin asa allahu an yaxfirahu illa rajula yamuutu mushrikan aw rajula yuqtalu yaqtulu muminan mutaamida mbokk yi bu ngeen gisee ñu ubbee waxtaan wi nii dañoo toll ci jamono joo xam ne nit ñi dañoo woyefal rey bakkan lu ñàkk solo dañ ciy rey nit da gis ñoo xam ne dañuy bàyyi ba suuf sedd ñu jóg war seen oto doon mbooloo song këru jàmbur jullit ni ñoom walla taalibe sax ni ñoom di daan dooleem di ñaq di kër këri ndax kër kër mooy yor kër di ko def mbooloo jóg guddi ñëw songu këram lal seen pexe tëral seeni pexe ñëw songu këram gaaw këram escorter këram dajji këram jël lu mu amoon te bu sëqatee ñu rey bakkanam am na ñoo xam ne sax duñ xaar ba nga sëqat dañuy jël sa yëf ba noppi rey sa bakkan dem nag defe ne ñoo ci nekk defe ne bu ñu ko lekkee dana rees te fu ne xew na fa ci réew mi ñu jàppoon ne du mos sa xew ci dëkk bu tedd bi waaye mi ngi am ci dëkk bu tedd bi mbokk yi ñaar dañuy xuloo ci weccet kenn ka jàmm moroom ji dangay ngay dégg léeg ñu naan juróomi dërëm la doon werante ak moom fukki dërëm la doon werante ak moom mu bocc paaka jam ko mu faatu fan yi rek ñi nga wax ñaar ñoo xam ne dañoo bokkoon di liggéey kenn ka yor liggéey ba dañ koo nangu ci moom jox ko ko ca des waaye da koo rey ba noppi nag rey boppam dañoo mel ni dañoo bëgg delloo si ceddo ga ceddo ga nga xam ne yàlla yërëm gi mënu yërëm wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yërëm gi mënu yërëm tax mu wàcc lislaam ñu génn ci kéefër ak ceddo ne ci xéewalug lislaam wa atmamtu aleykum ni'amati ñu bëgg nag delloowaat sunu bopp ci ak yaddu loolu dara jëru ko da nga gis ñoo xam ne sax jamaale rek lañuy def di ngoro di jamale kenn ka ñu jam ko mu wut ngànnaay rey moroom ji walla ñuy xeex kenn ka rey moroom ji te xamuñu ne ñaar ñuy xeex ku ci rey sa moroom ñaar ñëppay dem safara kon ñaari jullit bu ñu jëlee seen ngànnaay jàpp jàkkaarloo ne dañuy xeex bu kenn ka reyee moroom ja yonent bi nee na ñoom ñoom ñaar ñëppay tàbbi safara ñu ni ko ki ki rey kay tàbbi safara jaaxaluñu waaye ki ñu rey tàbbi safara moo ñu jaaxal fa qaala innahu araada qatla saaxibi moom it rey moroom ja moo doon bëgg-bëggam kon kenn ku nekk danga jógoon ngir rey kon mooy waral ñuy tàbbi safara dem na ba aaye sax yor ngànnaay di mit keneen ndax nee na xamoo seytaane mën na caa laxasu seytaane mën na caa laxasu waxaat na ne ku yëkkati ngànnaay jàkkaarloog nit malaaka yi dañ koy rëbb fekk tegul ngànnaay la ca suuf dañu koy rëbb te malaaka yuy rëbb ab jaamu bi yàlla dara jëru ko yàlla na ci yàlla musal te mbooloo mu jóg muy bëccëg muy guddi àndandoo ngir jël alali jàmbur wala bakkanu bakkanub jàmbur ku ca laal yonent bi nee na yàlla rëbb rëbb na la ña ko doon lal ña doon lal seen pexe ma ke leen dugal ci oto ña leen escorté ña dugg ci kër ga ku ca laal ku mën a doon rek yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam sunu borom rëbb na ko nee na laa yaqifanna ahadukum mawqifan yuqtalu fiihi rajulun zulman fa inna laanata tanzilu ala ala man xadarahu walam yadfa anhu su ñuy wax lii na dañu nekk ci jamono joo xam ne nit ñi dañoo woyofal tur deret dañoo woyofal rey nit rawatina ñi nga xam ne nag dañuy wax ne dañuy xëccoo àdduna ndaxte jamono ju ñuy waaj xëccoo àdduna lañuy seetlu ne rey gi day bari am na ñoo xam ne ñi seen xel wàññiku lañuy ñuy wër ñoom la ñuy rey am na ñoo xam ne danañu rey waaye du ñu yem ci rey bu ñu reyee ba noppi dañuy am lu ñu jël ca doomu aadama ba am na ñoo xam ne bu ñuy rey rendi la ñuy def rendi ni mu xar la ca gën a metti nag mooy li xewoon Touba bu yàggul dëkk bu tedd bii ak boroom ba mu koy sanc lam ca fas lam ca yéena ak mbooloo mi fi daje woon ànd ak moom di liggéey yàlla di taxawal lislaam mu def dëkk bi muy barab boo xam ne dañ fiy defaroo dañ fiy defare jiwu lislaam woo xam ne bu tasaaroo fu fu ñu dem defar àdduna nit di yawoo ci dëkk bi amul lenn looy xalaat lu dul di jàpp dongob daara buy jàng alquran amul lu muy juróom-ñaari at di ko rendi dagg ci moom cër yóbbu ak loo mën a sàkku ak loo mën a wut ndaw luy jàng alquran moos fa ko sëriñ bi tegoon wax nañu ne kuñ mos a indi ci moom nga mokkal alquran ngay tuut tànk danaa la yow day bokkutoo ci ndaw ñi léegi ci mag ñi nga bokk ndax fonk gu mu fonkoon alquran ñu ñëw nag ba ci tuubaa di fi rey dongob daara ak lu tax lu mën a tax rekk def na def def nañu lu ñaaw fii ci senegal ak fii ci tuubaa di jàpp ay njegemaar def ci ñoom naka sa noona noppi nag rey ko mi ngi xew ci Sénégal mi ngi xew ci Touba kon diine gi ñuy wootee di ko mbubboo nga xam ne koone ne jullit moom doonoo ko koo ko wax rek mu xeex ak yow koo doo taale bi mu reyante ak yow ab jullit nu muy reyee ku deful dara ab jullit nu muy defee njegemaar naka sudul noona ab taale bi nu muy rendee dongob daara mbokk yi nit melul na mu wax na mu jëf rek la mel nañu xam ne doomu aadama yàlla da koo dénk boppam na sàmm ay cëram bu mu jëf lenn ci ay cëram loo xam ne dafa naqari yàlla rawatina nag nga ngay jëf loo xam ne dafa bokk ci bàkkaar yi gën a yi gën a rëy am na juróom-ñaari bàkkaar yoo xam ne ndax alayhi salaatu wasalaam nee juróom-ñaari bàkkaar yi moom ko ko def sa sa këru safara ña ngi ko ubbi mu lay nekk dana ijtanibu as-sab'al mubiqaat qaala wa maa na ngeen moytu juróom-ñaar yi nga xam ne ku ko jëf nanga xam ne alku nga ñu ne ko yan la mu ne ashirku billah bokkaale yàlla wa sixru njabar ak njabar xool leen njabar ni mel ni mel ci réew mi waxat lu nafs allati xarama allahu illa bil ak rey koo xam ne nag deful dara deful waxul nga rey ko ba xadis ba jeex kon juróom-ñaar yi nga xam ne benn benn bu ne ci ñoom soo ko defee torox nga àllaaxira torox nga àdduna juróom-ñaar yooyu am na ñoo xam ne bàyyiwuñ ca benn muy bokkaale yàlla muy njabar muy rey ku deful dara muy lekk riba lekk alali tuut tànk baayo jirim walla baayo yàq deru jigéen ju deful dara deful waxul nga yàq deram ak nag mbooloo mu ànd di taxawal lislaam nga des ca ginnaaw des ca ginnaaw ak tawali ak tawali yow ma azaf yow ma zaf bu ñu liggéeyal yàlla nga ne ca ginnaaw des ca ginnaaw am na ñoo xam dañoo boole juróom-ñaar yépp mbokk yi nañu xam ne rey nit ni mu araamee nag rey sa bopp tam noonu la araame wax na moom ku tedd ka ne am na ci jamono yu jëkkee ya koo xam dafa yore loxo buy metti munu ko muñ mu jël paaka dagg loxoom deret ja di sottiku di sottiku ba faatu nee na yàlla nee na sama jaam bi day yàkkamte na de waaye du fóon du àjjana waaye du fóon àjjana kii de yàkkamte na waaye du fóon àjjana baadara ne abdi bi nafsihi fa xaramtu alayhi aljannata kon nag gannaaw soo rayee sa bopp sax mu yóbbu la safara te ndax dangaa defe ne yaa moom sa bopp kon nag jëmm ji nga moomul bakkan bi nga moomul soo ko rayee nanga xam ne doo fóon àjjana doo xam xetuk àjjana yàlla nuñ ci yàlla musal waxaat na ne man taradda min jabalin fa qatala nafsahu fa huwa fi naari jahannam yataradda fiha xaalidan muxalladan nee na ku yéeg ba ca kaw a kaw a kaw ndax xaru boo dee dem safara wa man taxassaa summan fa qatala nafsahu fa summuhu fi fi yadihi yataxassaahu fi naari jahannam ku naan tooke joo xam ne da koo rey nga xam ne dana dem safara ak yeneen ak yeneen kon mbokk yi rey bakkan daal ci bàkkaan yi gën a rëy la ci la ci ci la bokk kon ab jullit rawatina ab taalib waru koo fooyee fépp la bone fépp la araame waaye nag fii da cee raw ndax dëkk bi day dëkk boo xam ne boroom dafa liggéeyal boroomam ba mu faye ko dëkk bi kon nag ku fi munta defar wutal foo jëm waaye bu fi yàq yàlla na nu yàlla sàmmal sunu diine sàmmal na sunu kilifa gu mag gi ba lépp lu mu sumb yàlla na ko yeggale te ànd kook nun wasalaamu aleykum wa wa barakaatu